على زابا واو سوي لي جابا لا لا لا يوم الكعبة ردا زنايا على زابا سوي لي جابا يوم الكعبة على زابا سوي الإجابة يوم الكامل ريم دازنا رد سامي على الجمع ليلنا من يوم الهداية رد سامي على الجميع يوم الخزوع يوم الهداية رد سامي على الجمع لنا من باي يوم البداية كل زوجة وتبع الاتفاق وقت الرفاية كل زوجة dimbal ku maat waawa ma maat maat bi laxdi faayay dimbal ku maato dimbal ku maato gidan na maato laxdi faayay bi im afawtu waaw وما جافمت من عيد سعيد رايا بما فوت وما جافمت من عيد سعيد رايا تنولي خيري واو

علي بدرا بدرا وولد أمرا لموخ أمره مع أهل بدر مع أهل بدر بدرا فولت أمرا لا لا لا لا لا لا علي بدرا بدرا فولت أمرا لممخ أمري ما لبدر إلى الدراء إني أقول لا لا لا لا إله إلا الله لمن يزال الدراء إني أقول ولا يبيل ذو الجلال لا اله الا الله يا خير واو واو بابا لا اله الا الله ذو الجلال يا ود متوالي متوالي اجدوا قنقتنا لا اله الا الله الدنيا ابتداء بلا وداع جنقتنا سبقتنا تدا شدنا سب سوري سالو مكة صلختي زنبنا لا لا لا لا لا لا لا الدنيا ابتداء بلا وداع جنقتنا سبقتنا سافي اختفايا لا لا لا لا لا لا لا طيب ما سرايت ابخداي سافي اختفايا بلا جفاي بلا جفاي طيب أسائي طيب أداي طيب أداي asalu jodi kunen bi jodi la ilaha illallah jodi wa jalu jodi aw khalata la ilaha asalu jodi kulli bi jodi lil bi jodi wa jalu jodi wa khalata ya abdul widada adakil khulil murada adakil يا من أفاد بلا قراي قبل الوداد كل المراد يا من أفاد سب سيري سالي مباكي سلو قبل الوداد كل المراد يا من أفاد بلا قراي yëkkati leen seen ñaari loxo ca ko ñu màgg sëñ bamba jar ko ku ko yàlla man loolu lambal andey sëñ bamba nga ñëw fekk fi sëriñ Pape jox ko ko ablil burura dëgg la واذكر خلال أمة كلام بلا ملل والابتلاء واذكر خلال ومر كلام بلا ملل بلا ملل والابتلاء سعد لساني نور جناني وصل أماني وصل براي سعد لساني نور جناني وصل أماني وصل براي ساسة دايرة نخطة مايرة فلتك في جورة لمن يراي ستا دايرا لخوت مايرا فتب في جورا كسب سيرين فالو مك سلغي ستا دايرا لخوت مايرا فالتا كفي جورا لمن يراي ستا دايرا toog fi jawra toog fi jawra yuraayi an xus iyaali min addaraali wumil ala qali saraayi an xus iyaali min addaraali bilalaali qali saraayi كتابا قل كتابا واخبر كتابا زازراي خل كتابا خل كتابا كتابا واخبر كتابا زازراي يا خير رب خير القرب خير بدات يا خير رب خير مراوي دايا خير صلي وسلم على المتمم امين بابا يا يا صلي وسلم على متمم انتهاي وكل يا زيد بلا انتهاي وكل يا زيد بلا انتهاي ونقرب بخربا لحق لقي نيتا فلو من بابا يا با يوغي لي زيارة ونقرب بخربا لحق لقي نيتا doomi Bamba yaa baaxoo ngi lay siyaare wat nga réew mi xar baax tax nga léegi nuy tax doomi Bamba yaa baax ñoo ngi lay siyaare wat nga réew mi xar baax tax nga léegi nuy tax doomi Bamba yaa baax noo ngi lay siyaare fallu ay ga daa neex wur na gaañi ndax neex fallu rekk leen neex way wi am na seere fallu ay ga daa neex wur na gaañi ndax neex ndax neex fallu rekk leen neex way wi am na seere fallu rekk leen neex way wi am na seere fallu rekk leen neex way wi am na seere fallu rekk leen neex way wi am na seere fallu rekk leen neex ku sopp sëriñ fallu Mbàkke sa loxo yi fallu rekk leen neex way wi am na seere fallu rekk leen neex ku jaayi ren da nga jaayi déwén fallu rekk leen neex way wi am na seere e waay mbooloo mi jóg leen màgg ko ko def yàlla bu amee tànk yi ci doole Bamba jóg leen taxaw ca kaw ñu màgg Bamba ñaanal ko jóg leen kalana xaywi am nasara البكي أحمد خادنا إلى الأدب البكي أحمدنا خادنا إلى الأدب البكي أحمدنا خادنا إلى الأدب البكي أحمدنا خادنا إلى الأدب أما جود الفقراء فانتفع أسى الصعبي المجود والفقراء لم تزل أسى الصعبي والولي والوسل قد بكاس بالقلب والولي العلي والوزر خدك سب الكرب سعدي امتداؤك أمري به خد العربي سعدي امتداؤك أمري به خد العربي الخديم للمدح المهيمن العربي الخديم للمدح المهيمن العربي الخديم للمدح المهيمن العربي الخدير للمدح كسب سيري سالم بكسل الخديم للمدد المهيمن العربي القدير للمدد المؤمن العربي القديم للمدد المهيمن العربي القدير للمدد المؤمن العربي سعدي امتداؤك عمري بإخاد العربي سعدي امتداؤك عمري بإخاد العربي سعدي امتداؤك عمري بإخاد العربي سعدي امتداؤك xuri bi xadal arabi alu cant gi borom cant gi alu cant gi cant suñu fal mooy borom cant gi alu cant cant gi cant leen suñu fallu mooy borom cant gi alu cant gi cant leen suñu fallu borom cant gi alu cant gi cant leen suñu saliw borom cant gi cant leen ko moo kay suñu fallu borom cant gi cant leen ko moo kay yo suñu saliw borom jamono cant leen ko moo kay suñu fallu borom cant gi cant leen ko moo kay yo suñu saliw borom jamono sant leen ko moo moo ko falay borom cant gi sëñ Falloy borom cant gi sëñ Falloy borom cant gi sëñ Falloy borom cant gi antu leen ko moo ko sëñ Falloy borom cant gi daan leen ko moo ko sëñ Falloy borom cant gi Allah ji baara neex na ma du yow rek neex na say gaay say gaay la ilaha illallah Allah ji baara neex na ma neex naa ko maa ngi koy neexal bay le bin baara ko mu neex aljana lay xaar bay lu min baara ko mu neex aljana nga lay xaar bay lu min baara ko mu neex aljana nga lay xaar bay lu min baara ko mu neex aljana nga lay xaar e ku mu neex ku mu neexul moo la yilif jamono bay la min baara yaa wax aljana nga lay xaar a bégal nga nuy bégal nga sa bopp bégal nga say ah, min waa tawfiq aljana nga lay a bégal nga nu bégal a muntaxa ko siiroo may lu min baarako arjana nga lay xaar may lu jub nooru laay may lu min baarako arjana nga lay xaar seex ndigal na may lu min baarako arjana nga lay xaar ke soxna loo aljana nga lay xaar ke defar ma borom naas may lewin baarako aljana nga lay xaar ah bay lewin baarako aljana nga lay xaar lewin baarako aljana nga lay xaar kenn si ñëwul sëñ Bamba si ñe ah, ah, moo tax yaa nu yilis barakum neex aljana nga lay xaar Cheikh Mountakha mi defar dëkk bi bay do min baar aljana nga lay xaar Cheikh Mountakha dara da nga bay faal mi setal dëkk bi bay do min baar aljana nga lay xaar ku bëgg sëñ Fallu loxo ku bëgg sëñ Fallu loxo waay naa ci jar na ko acculeer aljana nga lay xaar a dukk dukk ñaw joxe eh a dukk dukk ñaw toog di jasaako ñun jasaako yéen jasaako ne fan borom as bay na min baarako ndax aljana nga lay xaar jël jëlal juma ba ca kaw teg sa làmp muy leer ah bay na min baarako ndax aljana nga lay xaar di bégal ganu bégal ka sa bopp bay na fan borom as bay na min baarako ndax aljana nga lay xaar bëgg sëñ sa loxo waat naa ni jar ah, baylu bi baaro ko ndax aljana nga lay xaar. fi man duuf Mbàkke soxna loo mata am Mbàkke soxna loo mata am Mbàkke soxna loo mata dendal jaajëf borom Taayif Mbàkke soxna loo mata am Mbàkke soxna loo mata dem Mbàkke soxna loo mata dendal jaajëf borom Taayif koo fi gis mu naan mana tay booba daa di kut kay defar ma rek kalo ay du soor may su ko man koo ci gis mu naan mana tay booba daa di kut yomb ya kay defar ma rek kalo ay du soor may su ko man dikku yam ya koo fi gis mu naan fan oo ba daa dikku tu yam ya ngay defat ma rek kalamat kay desaar mi nga koo fi gis mu naan yam tay oo ba daa dikku tu yam ngay defat ma rek kalamat kay seex dawul yam ya oo ti gis mu naan fan oo ba daa dikku yam ya ngay defat ma rek kalamat kay desaar mi nga man kobota dikkul yambo yaa kay defaan ma rek karawan bay do sooru bay dëkkata jëf di seex saal sang bi wax di seex saal bi ay naarin saal sang bi tontula war ci jamono ku bëgg bay ay sëriñ saalo sant laa waru ci jamono am ba am jeex la jagoon am sëriñ saalo moo jagoon Mbàkke daa yaatu moon anu doy ci ji jamono am ba am jeex la jagoon am sëriñ saalo Mbàkke dal yaatu moon yaatu doy ci ji jamono jannatu di maxwa moo di kër sëriñ saal ajjanay sëriñ saal daara yaa ga maxwa jannatu di maxwa di kër sëriñ saal aljanna may saal naata yaa ko ñax waa lamp yaa ngi taal ka ndox ma ñëw na nuy naan bi sa mu fa gis sëriñ saal ko def ca gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa. loo fa gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa. loo fa gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa. loo fa gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa. loo fa gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa. loo fa gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa. loo fa gis sëriñ Saal moo ko def ca Maxwaa.